ñi ko def mënoon nañ ne noo bu doonul candidat élection du am wala bu doonul candidat euh, ñun du ñu am candidat wala nangam nangam mais ñu ne mu ne day proposé Diomaye loolu ñun dañ dañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que li muy wane mooy euh, affaire yi du du jëmmi nit ki affaire mbir yi ngëm ngëm la. loolu bu ngay bu ñuy doxee noonu mbir kenn ku ne bu dee yaay yow lañ jiital ci dem nga xam ne danga am ay nawle yoo ko séqal da ngeen di war a di waxtaan bu ñuy wut yoon ku ne mën ngaa gis yoon wala su ñuy wut dëgg ku ne am na ci xalaat léegi buñ demee ba ne nag fii lañuy jëm waxaa bu boobaa njiit li moom mën naa daal di jiitu ñu topp ko fekk ñoo xàllandoo yoon ñun noonu la ñu déggee politique mel na ni ñoom noonu ñu ko doxale dëppoo na